mbokk yi niñ koy defee rek ci bokk di fàttaliku ak bokk di nafaraat ajjuma ji weesu ñu waxoon leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom da koo yaroon ba mu nekk ci yar yaru boppam boo xam ne yar bu rafet la boo xam ne mata liy matuk nit lépp ngi woon ci moom loolee nag dem moom itam ci diggante su gàtt mu def ko ci saxaaba yi ba suñ boroom di leen taggal boppam di wane seeni melokaan bokk na ci melokaan yi nga xam ne moom la suñ borom taggee saxaaba yooyee te wone ko mooy fi nga xamee ne suñ borom day wax ne muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xam ne ñoom la àndal day nit lañ ñoo xam ne buñ waree daje ka nga xam ne moom lañ war a dajeel ci ci loo xam ne xeex la danga leen fekk ñu doon ay jàmbaar yoo xam ne kenn kawewu leen waaye bu fekkee ne dañoo daje da ngaa daje ak ñoom ñi nekk ak ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk da jàpp ne ñii yoruñu fir sax nit yi jàmm rek lañ ndax melokaan yi nga xam ne moom lañ mel bokk na ci li nga xam ne suñu borom sa tàggaleen leen ko ba tey mu wax ne ñii day ulaayka allati hadahum ulaayka allatina hadahumullah wa ulaayka hum ulul albab mooy ñii day ñoo ñi nga xam ne yàlla teg na leen ci yoon wi nga xam ne ci lañ war a jaar ba tegu nañ ca waaye nag dañ cee boole seen xel dañ koy jëfandikoo ji du gën di xam li nga xam ne moom la suñ borom di jàngal loolu lépp doon ak ak yeneen aaya yoo xam ne lépp suñ borom lay tagg saxaaba yi ngir melokaan wi nga xam ne moom lañ mel te melokaan boobu ñu ngi ko am ci ndiggante su gàtt te ki ko def ci ñoom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi moomee moom itam suñ borom ko def ci moom loola nag kon mu mel ni bu fekkee ne dañoo génn dañoo nekk ci weeru gàmmu bi nekk ci cat li te yonent bi yaakaar naa ci biir gama gàmmu jànge nañ ko jàngin wu ne kon war nañoo jéem a delluwaat tuuti itam jàngaat saxaaba yi ngir xam nan lañ meloon ngir gën jàpp gën a xam suñu yoon ñun fon fan la war a jaar gën xam itam nan la ñuy war a doxe loolu nag moo tax tey jii mu am koo xam ne tànnal leen nañ tànnal nañ leen ko ci saxaaba yooyee mooy Mus'ab ibn Umayr moomu nag doonoon koo xam ne ku ko koo xam ne dafa toog benn bis dégg ñu ne ñu ne yonant bi sallallahu alayhi wa sallam day moo ñi nga xam ne ñoo ko gëm te am na kër goo xam ne fa la ñuy dagee kër googu nag mooy kër daaru arxam ibnu arxam ibnu abi arxam foofee nag la tax ñu fay daje mooy dañoo doon ñoo xam ne dañoo lépp loo xam ne mooy ay caaxaan dañ ko bëgg a sori dañoo doon ñoo xam ne itam lépp loo xam ne mooy lor yi nga xam ne moom la leen Xuraysi di teg ginnaaw bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam woote na wooteem boobu danañ ci jéem a mucc loola moo tax ñu dajee ci kër googee ba nga xamee ne moom dégg na loolu nag déng déngi wut nég nëgu néeg néggul waaye dafa daal di jëm jawal yi ci kër googee nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ba mu egsee fekk na yonent bi sallallahu alayhi wasallam di daje ak ay saxaabaam di leen jàngal di jàng ci ñoom lenn ci alxuraan di julli itam ak ñoom ci julliin wi nga xam ne moom lañ baaxoo woon ca jamono yooya. ba ko defee nag ba mu ko defee nag mu mushab moom daal di dugg ci biir lislaam bokk ci ñooy ñooñee ba mu ci bokkee nag doonoon na koo xam ne yàlla dimbali woon na ko mu amoon xel lool yàlla dimbali woon na ko itam mu doon koo xam ne ku xereñ la yàlla dimbali woon na ko itam mu am ak dogg goo xam ne lépp loo xam ne dogg na ca lu la mu bëgg a def dana ko mën a def ci ci ndimbalu suñ borom loolu nag moo tax ba mu daal ba mu nga xamee ne xas na miin barab boobee tax na waxtu wu nekk ma fay dem te fu dem day ànd ak xelam mu sedd day ànd ak xolam xelam bu dal day ànd ak itam lépp loo xam ne mooy mbégte ngir bokk ca ñooñee nga xam ne ñooy ñu yonent bi sallallahu alayhi wa nekk mu doonoon nag koo xam ne boobee ca jamono yooyee waajuram wu jigéen dafa doonoon ku yàlla dimbali woon ci am ab am am mu doonoon koo xam ne itam gone la goo xam ne dañ koo dañ koo dañ koo jàpp dañ ko jaaral dañ koo defaloon loo xam ne lépp luy xéewal wala lépp loo xam ne mooy mbigte doo yaay jee doon na ca taxaw taxawaay rafet ba tax nag bi nga xamee ne jébb doon na ab jullit te xam na ne loolu day bu ko yaayam yëgee dana ko naqari lool dana dana ca mer lool tax mu doon nëbbu ak njullitam waaye nag yàlla dogal bi am benn bés kenn ci ñi waa Makka yi gis ko ku mu Usmaan Usmaan mu gis ko muy dugg ci biir kër gi nga xam ne xam nañ ni mooy dajewukaay yonent bi ak saxaaba yi ak ñi ko gëm mu daal xam na ne itam foofee lañuy daje di jàng alxuraan foofee la ñuy daje itam di jaam di jaamu yàlla ci seen kéemtalaay kattan loolee nag tax. ba ko yaayam yëgee lépp loo xam ne mooy métit ak lépp loo xam ne mooy naqar teg na ko ko moom Musab waaye nag tax lu mu mujj lu mu def mooy dafa daal di jóge Makka dem Éthiopie ja ñaari gàddaay yi saxaaba yi def yépp ànd na ci ak ñoom bi ko defee itam ndax li ko li ko li tax mu mën a muñ xéewal googu nga xam ne moom la ko yaayam doon defal ak jàmm jooje yi ngi mu nekk woon mu mën ko muñ tey mën a jàng nangoo bàyyi xéewal a ginnaaw nangoo jànkoonteeg coono ya nga xam ne moom la jànkoonteel loolu lépp lu ko indi mooy lislaam dafa am nu mu ko yarewaat yarin wu bokkut ak la nga xam ne moom la baaxoo woon yaroo ci ba muy nekk ak waajuram loolee nag tax na mu daal di gëm bi ko lislaam yaree yar ba mu gëm ne kon jëmmam ji yàllaa ko moom kon da ko war a jox ba mu jeex moo tax bi ko bi nga xamee ne yaayam yëg na li nga xam ne mooy ak ak jépp ab jëf nekk jullitam mu tàmbuli nag lépp lu mu ko daa defal ci lu ci loo xam ne doonoon na luy sedd xelam léegi mu mu mu xañ ko ko xéewal yam ko daa jox yépp itam mu xañ ko ko waaye nag texul moom mu deltu ginnaaw delluwaat mu xam ne maanaam coono bi nga xam ne moom la maanaam xéewal googe mu nekk woon day yàlla gi tey moo ko ko gënal gëm yàlla gi tey itam ak ñàkk gi moog ak ñàkk gi mu nar a dugg itam ñàkk googee moog maanaam gi muy dugg nang na ko nangu na faa dugg ndax gëm yàlla gi nga xam ne moom la nekkoon ci moom mu doonoon koo xam ne waxtu wu nekk dafa daa solu col gu rafet de defar njañam bam bam rafet waaye nag tey gis nañ gis nañ ne nit la koo xam ne ay sagar lay gën a sol te tey bu lekkee tey bu day toogaan ay fan yoo xam ne du lekk waaye nag gëm gi yëg gëm yàlla da koo tax mu def ko geneen nit ku bokkut ak nga xam ne moom lañ noonu loola nag tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam genn di ku waa gis loolee muy dogg googee ak gëm yàlla gu réy googee nekk ci moom ba tax mu def ko li nga xam ne mën nañoo wax ne mooy Musab moo njëkk a nekk ambassadeur l'islam ci kaw suuf ndax moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni woon mu dem Madina ginnaaw bi nga xamee ne am na ab ay nit ci waa Madina yonent yonent bi daje woon nag ñoom ca ci ak aj ba waxtaan ak ñoom am lu mat fukk ak ñaar ñoo xam ne nangu nañoo gëm yàlla nangoo ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di yebal Musab moomee ngir mu dem ci Madina xamal ñooñee nga xam ne ñoo gëm yàlla ñoo gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nangoo topp li nga xam ne moom la ko yàlla wàcce ci moom ñooñee mu del mu dem ngir jàngal leen waaye nag yàlla dimbali ko mu doonoon koo xam ne ku am xel la doonoon koo xam rafet la lamb woon loolee tax na nag mu am ba mu demee Madina mu am jeexit ju rëy ci waa Madina ba loolee tax na am na kilifa kilifa waa Madina kenn ci ñoom muy usa Usayd ibn Xudayr moom am na bis boo xam ne dafa jël ngànnaayam ngir fekk si Musab fi nga xam ne moom fi la toog jëm si ci moom ba mu egsee ba mu jëm si jëm si ci ñoom ñun ñëpp jaaxle nañ ndax xam nañ ne kii day na narul jàmm waaye Musab dafa ànd akuk dalam ànd akuk tekkam ba mu egsi bi mu egsee ne ko yow da ñëw fii ngir bëgg noo soppi bëgg noo luñ gëmutoon bëgg noo bëgg noo woon koo xam ne mënuñ koo gis muy suñ borom kon léegi li ngay def mooy da ngay damay damay dal ci sa kaw da ngay bàyyi itam lii nga xam ne moom ngay woote mu sab ne ko déedéet du ma ko bàyyi waaye dama bëgg nga ànd ak daal déglu lii may wax jàng ak jàng ak li ma lay jàng ci yow boo dégluwoo lii nga xam ne moom ngay wax moom laa lay wax bu fekkee ne doy na la baax na bu la doyut ma ànd ak ma ma mën a bàyyi lii nga xam ne mu laa nekk waaye bi nga ak dal googee ma àndal ci nangu nangu ko won ne ko ki ngay wax ci moom lii de lii moo jóge ci moom lii lii jóge ci moom nag bu fekkee ne doy na la bu fekkee ne gis nga ne lu rafet la ñu ma ci ak yow bu fekkee ne doon na loo xam ne itam xëy na dalay neexu la wala naqari na la itam bu boobaa nii ma taxawee mën naa mën naa cee am lu ma ci wàññi loola nag ba ko ba mu ba mu ko jàngalee lenn ci aaya alxuraan yi moom kooku nga xam ne moo jëloon gànnaayam jëm si ci moom ba mu jàngee ba mu di ba mu ko jàngalee alxuraan dafa ne lii day mënut a jóge ci doomu aadama lii day lu rëy la daal di ne nag nan la ñuy def ba mën a bokk ci mbooloo mi nga xam ne moom nga moom ngay woote. mu Moussa wax ko ni nga xam ne ni ngay leneen noonu la ñuy def mu daal di koy def ba mu ko defee comme kilifa la woon ci Madina ñi ko kilifa yi ko ña nekkoon foofu itam dégg loolee nga xam ne moom la Moussa ja defee defanteeg moom ñoom itam ñu bari ci ñoom ñu daal di fàq ñëw ànd ak Moussa mu daal di yàlla dogal mu daal di am mbooloo mbooloo mu nga xam ne aj googu nga xam ne ci la ci ca ca xàq ba fa la nga xam ne ñooy fukk ñaar yoo ñi gëmu woon yonent bi ba mu dellusiwaatee ba aj ga dellusiwaatee ba muy demaat ab délégation bu rëy la Madina yebal te xam nañ ne fukk ñaar képp la fa la la ñoo fa gëmoon ba nga xam ne moom ba mu fay dem waaye ba nga xamee ne bis at ma dellusiwaat na ba muy dem juróom-ñaar fukk la àndal te juróom fukk yooyee moom moo leen jiite moom mi nga xam ne dafa nekkoon ku yonant bi yónni woon ngir mu jàngal leen li nga xam ne mooy yonent yenn mu jàngal leen li nga xam ne moom la suñ borom wàccee ci moom te woon te woon leen ko te xamal leen ko waaye ba mu leen koy xamal ak ba mu leen koy won dafa leen ko wane ci koo xam ne nit ku won na leen ne àdduna sii nga xam ne moom laa bokk ak yéen ak te xëccoo bi bari fii lu ne nekk ci man awma ci benn soxla ñaareel bi itam mooy lii nga xam ne mooy lépp jikko yépp jikko yu so yu doyadi ak yu yoo xam ne melut na mu war a mel yépp itam wàcc naa ko ci ginnaaw lépp lii nga xam ne moom laa nekk itam